gannaaw bi xalif bi euh, créé agence des grands travaux ci biir agence des grands travaux bi am na ñu ay projet projet gi soo gisee aérodrome bi président bu njëkk waxoon na ne daf koy def aéroport militaire waaye dem na bi ci biir mu soppi mu ne aéroport militaire et civil civil et militaire kon fa ñu jëm mooy fexe ba aéroport bi avion yi di fi mën a wàcc ko yëg su ko defee tri tourisme religieux bi gën a dox donc sur le plan culturel moom amu fi leneen lu dul waaw parce que moom rek doy na euh, euh, musée bu ñuy visiter bu ñuy gëstu bu ñuy xool projet yi ñu teg dañ ko soxla soo gisee coupure de courant de courant en pleine en plein dîner en pleine conférence mooy wane ne ñun war nañ am suñ centrale électrique boo xam ne nii duñ dépendre ci kenn man li ma la wax dépendance indépendance su Medina Baye laa def ci projet yi bon centrale solaire bi c'est pour permettre à Medina Baye que li ñu dal nii bañ ñu dal suñ demee ba ci biir ndox soo ubbee doo am ndox donc di ko suñu centre euh, centre d'épuration et de portabilisation des eaux bi donc am na son sens parce que ndox daf fi war a am pour que ñaar yooyu l'eau c'est la vie la ñuy wax bon donc su fi ndox amul nit ñi mënuñoo jàpp mënuñoo sangu et cetera ñun suñu amuloon ay citerne gaare ko di remplir réservoir yi ba nit ñi duñ ko sentir kon ni ko noon c'est la catastrophe